di ñaanal sunu wasila cheikh moustapha al sunu borom yagal ko fi tawere ko di ñaanal borom dar ji di ñaanal bay serigne do sunu borom yokk leeram tax ci barkem wa liñu ñu bëggoon a leeral tout rek ci lenn ci li nga xamne ne la mbokk yi bëgg xam muy fi nga xamne fi la dar ji soso deug lu duñ mëna a xam lepp sax waye du ñak am lenn lo xamne ne ko ci xam ndax lu mu am nañ fi ay at xamna ne donte xam lepp it am na loo xam ne mënees xam maanaa daal ci ci ci ci misaal ak ci gàttal ak ci tënk daara ji sunu maam Serigne moom moo ko yoroon te it am na ci ay dëkk yoo xam ne ci la jot a jaar ba agsi fii ba wax nañ ne sax bi mu demee bay bëgg agsi ba bay toll ci jamonoy agsi fii ci ci dëkk bu sell bi Touba wasilaam wa sin Mbàkke Soxna moo ko ci joxoon ndigal waaye ba sama borom dogalee nga dem ba ndigal la jàppandiku jamonoy 52 53 jamono yooyee la daa di agsi fii di di dëkk bu sell bi dëkk bu sell bi nag bi mu fi agsee yor na daara ji bi nga xam ne si maam suñu mbàkkiloo mi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy doomam yor daara ji jamono ji bi mu koy laataa yor ci tënk rek xam naa lépp duñ ko maa leeral waaye des koy tënk rek waaw bi muy laataa yor ji yaakaar naa ne Baye Serigne doxal na ko Touba loo xam ne si lu diiree diire la biñ demee ba ba xam ne si ci la suñu borom dogal ay ci ci liñ jàpp rek ci sunu xalaat bu gàtt 2004 ba 2005 wala 2006 ci la ko maanaam sun borom maanaam mu xaw mu xaw a néew doole lool ci ci ci daara ji moom boobee xam naa ne ci ci ci obare suñu borom rek ak ku wutaat googu suñ suñ mbàkke war a wuutu xam naa moo tax jamono jooju suñu borom toftal ko ci loolee ba boobu ba léegi suñu mbàkke mi ngi yor daara ji ba mu ko yoree léegi nag suñu borom dogal na ne dara dara dara dara tilimu ci dara dara ñaaw ci waaye dara it amu ci jafe-jafe boobu ba léegi nag suñu mbàkke mi ngi yor daara ji bu fekkee mbooloo mi ak cant gi comme ni ko mbokk yi laajee nga xam ne ban bis la yan jamono lañ ko tàmbali yaakaar naa ne ñu ko tàmbali deux mille mën nañ ne sax mën nañu wax sax deux mille trois nga xam ne daayira bi moom boobu ci ndigalam la la la ci lañ ko tàmbalee waaye biñ koy tàmbali ba di ko bëgg a génn it moom moo joxe ndigal ndax ab donga moom ku ne xam na ne lam daan xam mooy dem di football yi wala ngay ngay ngay ngay wàcc ba di am liberté. waye gaay mag yi nga xamne ñom ñoo ñom ñoo nekkon ci daara ji ku melni ni ñi mag yi ngeen xamne ñom ñoom ngeen gis ci ci ci ci ci ci ci ci cant gi ku melni seigne Pablo seigne Cheikh Bambali seigne ahmed deng Cheikh abdourahman Fall ak ñi ci dess ñepp bu suñu soo ñom ñoo ñooñu tok ba yag ñu xalaat ne ab daayere kat war na fe mëna am biñ xalaat lool wax ko wax ko jëwriñ ji jëwriñ ji daal di koy rafet lool daal ñu ci jox ndigal laat ne lu mëna doon nak ni ngeen ci wone yar ak teggin boobee ba léegi nak sa borom dogal na daara ji mi ngi dox mi ngi dox bu baax wax dëgg yàlla mi ngi jëm ci kanam bu baax a baax te yam borom mu jëm ci kanam bu baax. Vũ Đà Linh ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على syaitanir rajim fanabathnahu bil arai wa huwa saqim wa ambat alaihi sajaratam يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد فآمنوا فمتعناهم تفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا إناثا وهم صاهدون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلئون بالله إنهم لمنكم وما هم من وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مخارات أو مدخلا لولوا إليه همم يجرحون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها من خاتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى من الحسنى لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى れは Sí. الله الرحمن الرحيم فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبت na alayhi sajaratan min yaqutin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famat ta ومتعناهم إلى حين فاستفتهم ربك البنات ولهم البنون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم يالله المصطفى سنيدي الله وبقليلك إبراهيم يلاه وبكليمك موسى صالين قديرين وبصعيب وإسماعيل يلاه وبسليمان نوح يونس يسعي وسكريا يهيا هود يلاه هارون يوسع إلياس وآدم دا هود قبل هزالو يلاه ويوسف وبإساق وغيرهم من أنبياء ورسل لك يلاه وبالملائكة الرنس ثم سقطهم جبريل ثم بميكائيل يلاه وصاحب النفع إسرافيل خابد أر وهي الخلائق عسرائيل يلاو وبالصحابة ثم الأولياء معا والعاملين من الأحبار يالله وبالصديق والفاروق ثم بالنورين ثم بالستين يالله بمالك في المزايا السابع أبي حنيفة أحمد المحمود يالله بالله والقرآن والقلم المحفوظ ثم سك العظيم وبالكرسي هي الله وبالقرآن وبالتورية ثم بما داود جاء والروح هي الله بلغ صلاتي وتسليمي عليه له والآل والصحب والأسواد الله وأقبلن علينا ربي عافية وأرنا رتق الدار يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتاه الصالحين من الخيرات يا الله حمدا لمن وداي ومن في الشفاء والدواء والأمر العباد بالدعاء ليدفو به عن البراء ثم على من قيس مسد أمرا جبر بلا بد وفاس بالعرض محمد طبيب الحكيم أسقى سلام يا ربنا الكريم والآل وصحبه سوي العلاء مقتا جزو أسقى بالسباي فيصابني يا مسوء أوجاي متهيا على مجيبته واستكي إليهما من الدرد قد مسني عطاء ورن مدرد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فانطرنا بجاء غير العالم الأكرم ثم من رمضان العظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا وام إيمانا وتجاوز عنا وأنزل يا ربنا غير النعم ما كان ما نقع في إنسان نعم وهب لنا الأعداء والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا عزا على الطاعات وكفنا كسر بأوقات يا بر يا لطيف يا معاف يا من له undisho majalisa niswaan fi di nuyu ak ziyaar képp ku nuy bàyyi xel ak foo mën ci àdduna rawat na Sénégal waaye rawat na nag ci dëkk bu sell bii di Touba. di ñaanal Seex Muntaxa Basiiru mu yàgg fi loolu te ak mboolem njabootug Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul mbokk yi gën naa bañ leen nuyoo ziyaar leen di leen jox seen wàccuwaay tey jii nag ñoo ngi am mbégte ñaari gan ñi nga xam ne ñoom ngeen jàkkaarloo ci jotaay bi ki nga xam ne moom laa feggool sama wetu nday joor di soxna Faamaloo sama wetu càmmoog di soxna Ngaye Jóob ñoom ñaar ñëpp di ay muallimatul quran di ay jàngalekat di jàngale fële daar daara jamaatul xidma lil quran si njiital sëriñ Mbàkke xam naa dañuy daal di nuyoo ñoom jox leen présenté seen bopp bu ko defee ñu doog a tàmbali waxtaan wi soxna Faama nuyu la waaw jërëjëf soxna Ndeye Bène gannaaw ba ma musloo ci seytaane di sant yàlla tey gërëm Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul soxna Ndeye Bène ci gàttal rek ñu xamle sunu bopp maa ngi tudd soxna Fatma Lo dëkk Touba ko nii su daara di jàngale alquran ci daaray jamaatul xidma lil quraani ci njiital Sëriñ Mbàkke Lo maa ngi koy nuyu bu baax ak di ko siyaar ak di ko ñaanal jàmm soxna Ndeye Bène daaray jamaa jooju fa jàngee alquran batay tey falaa alquran ci atum 2014 gannaaw bu ma wattoo ma continué di jang ak di jàngale ba fi ni xam-xam bi sha allah ñoo ci sant yalla bu baax batay ma ngi doon bind kamil mu melne sax jom naño bind ñaari kamil benn mi joxon ko Serigne Sidil Mokhtar mbake yalla yalla yokki leeram ta tax ñu ci barkeelam benn mi jox ko Serigne Cheikh la xam mbake mi nga xamne moy Serigne sama wajur li ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadim Rasool soxna Ndey be sun de xamne sunu bop damay wax ne ma ngi tuddu soxna job don ku xeebu nak dekk fi ci Touba jàkkee Serigne Mbaye ndjay Banji di jangale fi ci daaray Jamaatul khidma jiital sunu baay Serigne Mbàkke Lo di nuyu bu baax di ñaan suñu borom mu may ko fanu guddu wu ak wer soxna si daaray Jamaa fala laa alquran fala ka mokale ci atum 2017 continuer di jàng ak di jàngale ba fi mu ne nii sunum jàng xam-xam boole di bind ak di jàngale ci gàttal daal Soxna Jóob loolu mooy aw doxinam jàng ak di jàngale kon loolu mooy sunu waxtaan tey kon soxna di tàmbali xam jigéen bu baax ni mu mel jërëjëf soxna Ndey Bey ji laaj bu am solo boobu mooy jigéen gu baax ni mu mel jigéen gu baax day woor weeram wattu payam topp jëkkëram teeg tànkam ndax sunu borom nee na na waqarna fii buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyati loolee kon li gën ci moom mooy bu mu génn ci li dul ndigalul borom këram ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jigéen gu génn këram ci lu dul ndigalul borom këram lum taseel da koy ñaanal bugalum yàlla sun borom wal xiyaasu billah yàlla nañ ci yàlla musal man na maa wax ne jigéen du man dara lu dul daa jiital toog ci këram ndax loolu moo koy dimbali ba mu mën a sàmm liñ koy sàmmloo ci këram te jigéen bokk na ci ñuy sàmm te dañ leen di laaj ñiy sàmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kullukum raahin wa kullukum mas'ulun an rahiyati yi boo jàngee xadis bi ba mu jeex da gis ci biir muy wax naan walmaratu raxiyatun fii bayti sawjiha wa hiya masulatun loolu mooy soxna si ab sàmm la ci biir néegu sayam te dees na ko laaj la mu doon sàmm kon nga xam ne li muy sàmm ci këram lu rëy la luñ koy laaj la donte sax moom toppatoowu ko xoolu ko teewul na jigéen ñu baax ñi ñu ngi koy xool ak di ko bàyyi xel te sax jigen li tax mu wara a gën ab tankam moy xémam téfam ci goor da bari lool te ñom lu mu yag yag seen téf du wañiku day yok waye du wañiku wuté goor ni nga xamné ba du doyal ci xol suufi du doyal ci taw nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko wax ci waxam ji arbaun la yasbaanna min arba'in ardun min matarin wa unsa min sakarin wa aynun min nasarin wa alimun min hilmin gis nga né jigen la tek ci suuf ci ni mako tégalé kon lool rek warna tax sunu mbokk soxna yi senum tank bu baax watandiko genn bu bari bi soxna ndey faama ci leral yu am solo yoyu mu melna dañu so suñuy kaddu fi soxna faama daanalee mooy jigen war naa tee ab tankam loli ma ci wax moy jigen ab gennam talul ci mom kep ndax gor gu mu tassel mu xookata ci am bakar te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma min muslimin yansuru ila mra'atin awwala ramqa summa yakhuddu basarahu ila ahdasa allahu lahu ibadah يجود حلاوتها في قلبه رواه احمد لول موي بيب جولي بو خول اك جيجين خامنا كي اك جيجين لا nga da di xef fasas nga bañ ko tolanti dana am ben neexutu jaam yalla bimi far ci sa xol te ko bobu amo ci bakar ndax abo sayyid محمد الخيرواني واحنا سبتيرم بتدو الرساله وليس في النصر الاولى بخير تعمر خرج تلول موي xool bi nga xool jigéen boo ko teyul amul bàkkaar boo ko teye nag am nga bàkkaar waaye mbokk yi li gën a war génn jigéen ñi bañ leen di xool bari giñ bari ay yére yu rafet waaye bu fekkoon ne bari wuñ ay yére yu rafet seenu génn dina wàññeeku lool looloo tax yéen sallallahu wax na istaqiinu ala nisaai bil xuri fa in ihdaahunna isa kasura siyaabuha wa ahsana riinataha ajabal xuruj loolu mooy na ngeen di neewal koddaayu jigéen ñi ndox lool dana leen dimbal si toog ndax ku ci bari ay yére bu waajee bëgg génn bu yoru yorey rafet nag du waaj te bu waaju du génn lii nag du tee waaj ci biir këram ngir bégal jëkkëram loolu tiyaaba jë loolu tiyaaba jërë min si loolu daa soxna moom laa doon leeral ci la nga xam ne moom la soxna Faama doon wax ci soxna yi kon faawu ko bëgg doom ji baax ngay nangoo muñ bu baax soxna jaara bu sa daana wax loolu yal na yàlla yokki leeram te moom muñ ci la mbooleem yi baax yi di amee mbooleem jigéen yi am doom yi ñuy ak di barkeelu ci ñoom dañoo nekkoon ci lu baax nangoo muñ sëriñ Fàll mu sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaar loxo daana wax ne wàlliw wi ñi ngi nii ci kaw asamaan waaye dañoo gisul jigéen ju baax ju mën a jaar ba ñëw li ko waral mooy jigéen daa mel suuf te nga xam suuf bu baaxul loo ci di sax wala bu saxee du baax waye teewul dana di am gaay yu baax te seen melu nan wara mel ndax sunu mam ibrahim asara ab keefar la te mom ab yonent la kon du jaagi ne jigen gu baax dong moy jur ku baax waye nak mo gëna bari ndax sunu borom man ta tak ay jëfam waye bari na lu mi def diko ci ay sabab Adam. kon suñu mbokki jigen yi ku ci bëgg njaboot gu baax gu barkel na gor golu ci baax suko defé sun borom man la ci dimbalé kon soxna si lolu da doon xamné ci jigen ju bëgg jërëjëf soxna Ndeye jërëjëf soxna Faama ci leeral yooyu soxna jigéen ju baax lu am solo lislaam donte sax jigéen bu sàggan dina jur doom ju baax waaye teewul jigéen ju baax lañ ko miin comme ni ko soxna Faama waxee te buñ demee ci alquran mi ngi nettali sayyidatuna Maryam bi mu amee doom ji amul baay ba nit ñi xam ko ñëw ne ko maa kaana abuki imra'a saawiya wa maa kaanat ummuki baqiya ne ko yow de sa baay nekkutoon ku sa yaay ne ko noonu ci loolu kon lañu xam ku yaayam ak ku baayam baax nee na lu muy bon loolu tax na gaañu baax musuñoo dañ di ñaan seen boroom soxna su baax su leen dimbal ci diine sëriñ Tuuba xaadim rasool wax na ci xasinaam bu tudd Matlabul Fawzayni wa zawjatan saalihatan tuxiinu ala tuqa wal birri yaa muxiinu sëriñ mi daa wax ne sunu boroom nang ma may soxna su baax soxna su ma dimbal ci ragal yàlla sunu boroom ak ku topp yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man tazawwaja faqad istakmala nisfu diinihi falyattaqillaha fi nisfi zaani yonent bi dafa wax ku takku soxna sàppa matal sa xaaju diine fa xeela matal bañ a des ragal yàlla mu mel na looloo tax sëriñ bi di wax soxna ma dimbal ragal yàlla suñu boroom ndax ku matal sa xaaju diine dimbal leen ragal yàlla suñu boroom kon suñu mbokki soxna yi war nañoo gën a xencuwaat ak baax matal suñu mbokk góor képp kuy wut soxna war nga xola bu baax ngir ngeen mën am jabo ju baax rawati na yi nga ya xamne dañ na ya ràññee ju yoon bu ta may ko gis jigéen rek mu tar ngeen sobu ci mom ta xamu len ay juka ba xam sel na wala de kon soxna loolu laa doom leral jigen gi baax solo gi am solo si lislaam ci xale yi kon soxna faam dana bëggoon leral gi gis jigéen ko ci kawal ci jëkkëram bismillahi soxna si da ngeen jigéen mën naa ngeen ci lislaam neen way fu nga xam ne doo ci am bàkkaar ndax la xaraamoon jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey jii la gën a xaraam noonu la ko Sëriñ Tuuba waxee ci Fathul Manaan fii jawaabi Abdurrahman kan na borom di wax naan qul laa yastawi al-xabiis wa at-tayyib walaw a'jabaka kasratu al-xabiis fattaqullaha yaa ulil albaab la'allakum tuflixuun loolu boroom nopp na si lépp ndax li ma xaraamal xaraamal na ko li ma daganal daganal na ko kon soxna Ndeye Beye foofu laa wàccee sama kàddu mu mel ne soxna Fama leeral na am solo moom kon ne leen dina takkuwaat te jëfe ndigal bàyyi tere te ne moo seen njëriñ àdduna ak àllaaxira kon bala ñoo ñëw ci suñu kàddu yi mujj dañu dem fële ca Daaru Xudoos fekk atul ndox sëriñ Mbàkke Jeel mu defaral ñu benn gëstu ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko daara ba pare mu mel na nga xam ne moom la seeti woon tey ñu ngi bàyyi ko waxee ci Daaru Xudoos fekk fi kenn ci jaaroon ci daara Jamahirul Xidma bu Serigne Mbacke Lo moom nag ñi di ko wax Serigne Gueye Dieng mu jiite mbooloo mi ne ñoo bàyyi koon ci daara ji kon dañ koy jox suñu micro daal di Cheikh moom waxtaanu ga Serigne bi maa ngi lay nuyu eh, asalaamaaleykum wa kon ku baax ki fay naa la bisimilah. liggéey gannaaw bañ la nuyoo dañuy daal ci xëy waxtaanu gàtt ci liggéey bi nga xam ne yéen koy def daara jamaatul xidma mu mel ne yow yaa nekk ca bopp ba sëriñ mu mel ne daaw ren am na lu liggéey ci daara ji ñu bëggoon nga indi ñu ci ay leeral. jërëjëf ku baax mu mel ne liggéey bi euh, daaw ak ren liñ ci jot a liggéey nekk na loo xam ne si lu am solo la bala ñuy dugg ci dëgg-dëgg nag euh, daaw liñ ci liggéey ren. bëggoon nañu am lu ñu leeral dëgg-dëgg ci liggéey bi pour ñu bàyyi xel bu baax a baax ne liggéey bii ñuy def ci daara ji ñuy jàkkaarloog moom muy mbaar mii liggéey la boo xam ne si liggéey la bu am solo boo xam ne si mbooloo mi koy taxawu fi ne nii euh, néew nañ lool te jotaay te te ñi jaaroon ci daara ji war koo taxawu ëpp nañ téeméeri nit cent personnes ëpp nañ ko te dafa mel ne information bi jàll na ci fu nekk ku nekk ci ñoom yëg nañ ko. waaye pour ñu taxawu liggéey bi ban naa la wax ñi koy taxawu suñu matee fukki nit ak juróom dañ ko paase loolu nag war nañ cee taxaw seet seetaat dëgg-dëgg lan ma waral loolu ku nekk ci ñun da ko war a def ndaxte euh, bàyyi sëriñ Lo ba mu fi nekkee ñun ñu fi nekk di jàng Alxuraanu Karim amul kenn ku daan ku fi daan fay dara déedéet bay sëriñ dañu daan jàngal ba pare dawuñu ko jox dara tey nag mu def ci ñun loo xam ne si lu rëy la muy Alxuraanu Karim kon jot na sëkk ñu delloo ko njukkal ana nu ñu koy delloo njukkal mooy fexe ba liggéeyam bii mu fi bàyyi suñ Mbàkke Lo di ko continuer ñun ñu jaaroon ci daara ji ñu fexe ba chaque mois 3 millions ñuy la ñuy laaj ñu ko joxe te loolu lu yomb la te mën naa la wax ne fukki nit ak juróom yi koy taxaw ñooy def léeg-léeg ñu am réunion bureau fii ci euh, daara ji jékki-jékki daal di jaayante kii ne mën naa jaayante cinquante mille kii ne mën naa jaayante vingt cinq mille moo tax liggéey bi toll fii. te liggéey bi yàlla dañuy def barke bu rëy rëy ndax lu tax mu def ci barke bu rëy rëy mooy mën naa la wax ba mu commencé ba léegi maçon bi koy liggéey da koo jaayante maanaam dene bu ko kenn fay dara li mu bëgg mooy bàyyi fii loo xam ne si su ëllëgee dañ koo koy xoolee muy bàyyi Aliou Diagne mii bàyyi Aliou Diagne nag ñëpp xam ne moo jaayante liggéey bi kenn fayu ko ci dërëm ànd ceeg ñenn ci dongo yi ku mën ne sëñ Moustapha Sall mi nga xam ne dafay jaaroon kooku tamit bokk na ci ñi koy jàppale ak ñeneen ak ñeneen waajur dongay ci liggéeyu daara ji ak ñi xam ne def lu baax ñor na leen waaw li ñu waxaat ci waajuru dongo yi man na ne réunion bi ñu mujjee def euh, ci wàllum waajuru euh, kii soxna yi maanaam suñu yaay yi ñoom fi ne pare nañ pour bokk ci liggéey bi mooy ne dinañ fexe ñoom chaque mois am nañ jaayante ñoom di ko dajale pour di ko def ci liggéey bi kon mu mel ne waajuru góor yi kon ñooy bëgg a des waajur góor yi dafa mel ñoo ñooy bëgg a des kon waajur góor yi jot na sëkk ñoom tamit ñu jéem a xool nu ñu organiser jéem di jaayante ci liggéey bi te bés bii waxoon nañ leen ne képp kuy ñëw nanga nga jéem am loo ñëw pour jaayante ko te yegg si yegg si nañ ci bis bi kon ñi ngi ñaan képp koo xam si teew nga fi nekk waajur wala nekk wala nga nekk koo xam ne si liggéey alxuraan dong moo la ñar taabal jaa ngi nii am nañu fi toog ñoo xam ne si loo leen jox dinañ ko dugalaat ci liggéey bi li ci desaat mooy dañuy jàllale loo xam si dañ ko bëgg ku ne bàyyi xel am na ku may fi ne nii am na yéene euh, tabal euh, xaalisam ci liggéey bii waaye yàlla def na ne yoru ko waaye am na connaissance boo xam ne si mën na faa jaare koo xam ne si su ko waxee mën na ñëw bokk ci ñi nga xam si ñooy taxaw liggéey bi kooku xeebuñu ko ñu ngi koy bàyyiloo xel bu baax a baax liggéey bi lu mu ci mën a jàppee moo xam jaaru jaar na ci daara ji moo xam jaaru ci daara ji koo xam ne si daal alxuraan ñor ñor na ko liggéeyal boroom ñor ñor ko ñu ngi koy soññ bu baax a baax ci liggéey bi lépp loo xam ne si mën na ko cee jàppee moo xam ci euh, connaissance bu mu mën a doon ñu ngi ko ciy xaar di ko ñaan lu mu ci man mu jàppee ko ndax de liggéey bi dafa nekk loo xam si yombul parce que bañ ci commencé ba léegi ñun lañ ci financé goon rek ci xayma man na 4 millions 4 millions et quelques te 4 millions et quelques tax mu mat ko mooy li liñ fayul maçon bi moo tax waaye su fekkoon dañuy fay maçon bi fi ne ay 7 millions ay 8 millions la ñuy wax waaye ci baax ci kàttanu yàlla ak baaxam moo tax fi ne fayuñu daray maçon bi ñun li ñuy def mooy jënd matériel bi kese. Serigne Gueye kon foofu la ñuy tàggatoo ak yow kon mu mel ne mbokk yi dégg nañ ne nga xam ne noonu la ko Serigne Gueye leer ci seen liggéey kon soxna Ndeye Beye foofu la ñuy ak mbokk yi di leen jox di dajee ci beneen jotaay waaye tamit ci beneen daara Serigne Mbacke Dieng Touba Darou Khoudoss Rajo Télévision Jamaatul Xidma TV ñoo ngi leen ñaanal suñu borom mu a seenu fan te defal leen jàmm ak tawfeex wala mën a yeggal seen liggéey di ko bëggee di sant bu baax seen njëriñ Serigne Mbacke Lo moom di ko baax di ko baax di ko ñaanal suñu borom mu gën kaa sàmm aar ko ndax liggéey bi mu liggéey si yoon wi am na solo lool yaa na ko sunu borom dolli koo jàppale xam naa moom sax du ñàkk ba beneen jotaay moom la ñu dalal waxtaan ak moom ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci ndaw ñi di sant Serigne Mbacke Dieng mi leen teewaloon projet Daaru Khoudoss di sànn képp koo xam ne yaa ngi ni bàyyi xel ak dinu seetaan ak foo mën ne ci réew mi kon nañu daal di wàccee foofu suñu kàddu tàggatoo ak yéen ba neen yoon soxna Ndeye Beye seen xarit seen soppe ci kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu